gannaaw ba nu tegee xeer xeeru njëkk wi nga xam ne moo jëm ci université Cheikhul Khadim tey ba Bassirou Mbacke Abdou Khadir ñëw na ci barab bi ngir nemmeeku liggéey bi fi mu toll waaye li mu gis dal na xel. ñëw fi ak mbégte mu rëy ndax liñ fi fekk mooy loo xam ne kawe na suñ euh, kenn mënutoon a xalaat ne ci diir bu gàtt bi liggéey bi dina agsi fii ndax motagul at te gis ngeen bâtiment yi ni mu yëkkati ko fi mu àgg kon loolu. dañ ci sant bu baax a baax ànd ceeg mbégte mu rëy ndax sëriñ bi liggéey bi da ko itteel te ñor ko mu wax ma ci ay kàddu ci ci wét wax ma ci ay kàddu ci biti kon loolu ndegam moo fi desoon ci naari sëriñ Tuubaa nag kon day mel ni yitte jëpp dañ ko war a jël jëmale ko ci. gannaaw ba mu waree université bi nemmeeku liggéey bi fi mu toll sëriñ Basiru xolam sedd na dal na ci li mu gis ak li nga xamee ne ne noonu la liggéey bi doxe di ñaanal ñëpp daal liggéey bi daal ni ñu ko tàmbalee nii tarafe njortu ci ne balaa déwén dana fekk ay nit di fi jànge yàlla na ko suñu borom mottali te dal nañ ci xaritam ndax li ñu fi gis xam naa bu ñu doxaatee ay weer dana ci ab bâtiment yu noppi yu nopp mën a ubbi. moom sëriñ Bassirou Mbacké bi mu ñëwee ci barab bi kii di sëriñ Mame Thierno Mbacké di doom ci Serigne Moustapha Bassirou Mbacké moo ko dalal teeru ko moom it am mbégte mu rëy rëy ci teew gi nga xam ne porte-parole xalif général de Mourides ñëw na ko di nemmeeku liggéey bi nga xam ne moo jëm ci université bi. seen ñëw bii nag dañ ci am mbégte lool ndax dana nu soññ dana nu may itam. ñu xool lu ñu war a jubbanti ñu jubbanti te loolu foo ma gisee rek danga nga may laaj fu ñu toll ci université bi euh, mooy wane ne sa yitte la te ñor na la te ni la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha digalee yaa ngi koy def bu baax lu kawe njortam. gannaaw bu mu waree liggéey bi ñu leeral ko ci lu bari sëriñ Basiru yaakaaram xelam gën naa dal ci li nga xamee ne ne moom la gis te yaakaar rek ne taalibe yi pas-pas bi nu am ak yéene ji te lii feeñal ko nekk na rek loo xam ne dina mën a jëmmal li nga xam ne moo desee sëriñ Tuubaa ci ak bëggam ci kaw suuf